laataa ñu jàll ci anniversaire yi ñu jàll ci euh, sunu euh, musique ak euh, Euh, nouveauté yi. Euh, dañuy tàmbali ak euh, vidéo bu bees bu Bo Diaw. a reçu ci plateau bi d'ailleurs ak Awadi. voilà mm. vidéo boobu nag la ñuy njëkkee donc Bo Diaw. ak mélomanes yi nga xamante ni ñoo bëgg musique bu neex. absolument mm. balaa ngaa convaincre kenn da ngay ñëw convaincre déjà fi nga dëkk. Mm. donc je pense que ne base am na ci solo lool et vraiment je pense qu'il a réussi sa première sortie donc muy vidéo bi nga xamante ne mën nañ ko retrouver sur YouTube c'est officiel donc génn na depuis démb donc tey ñu may leen ko exclusivité bi donc voilà yow laay wër moom mooy. première vidéo bi nga xamante ne moom la doon proposé tey suba alors ñu jàll ci deuxième bi. ayca ma may la ci ban euh, mandi bu coon bi wala mandi bu ñam-ñam. Euh, waaw coon bi ak. Euh, ak ak Paulette. ak Paulette voilà donc mu ñu seetaan ko juste après on revient pour pas bu fekkee ne yem na. 돌려 다른 감마 굽게 뚫어는지 와자 뜨거라 다른 감마 다른 감마 내 모아서 할라 나와 하상 마할라 테이요 يومي ما تعنك زنبي دفلة عندنا نرى فسيين إنجا دنجبا ngala pundirero pundirero ngala pundirero akan vrai que c'est une belle rencontre entre ñaari génération ak style yu bokkul Thione Seck Paulette euh, mënul def lu dul neex en fait da nga kii nga sama lañ ci donc voilà loolu moom moo doon d'ailleurs particularité sax xamuma sa dara euh, d'habitude d'habitude dañuy gis transtage yi dañuy gis d'habitude tranche d'âge yi bu amee marge bu ëpp bu bëri lool c'est un peu difficile pour ngeen def euh, vidéo parce que li koy waral rek moom mooy euh, ñaari style yi euh, dañu dañu wute mais mën nañu comprendre tey mën nañu nangu coon way ci ko Zouk parce que début am moom fi muy wayee mën na ko teg ci style musique bu ko neex donc Paulette nag a fait bon choix mais dafa ñëw nag jël benn morceau boo xamante ne d'habitude booy def yenn reprise yi dañuy am tendance di déglu ki ko way donc pour ñu àttee la dafay yomb mais la réussi parce que jéem a ko woyee euh, d'une manière extraordinaire da ko woy avec sa voix et sa euh, avec les mélodies mais woy ko aussi ci rythme bi nga xamante ne moom mooy style donc moom muy zouk wala euh, voilà donc ñu ñu gën ko xamee ci Kabo donc mu ànd ci nag ak Thione Seck muy très très belle collaboration qu'on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube donc pour buñ ko bëggee seetaanaat mm. donc loolu nekkoon na particularité vidéo bi déjà moom mooy ñaari âge yi mm-hmm. d'abord encore. et euh, génération yu bokkul génération yu bokkul. ba bi nga xamante ne coon euh, fekk na ko fa. waaye ak moom. Mm. te jéemul sax yéeg mais da ko tout simplement. et c' est c' est magnifique. ça a mm. vraiment été un beau duo ndeysaan. voilà donc vidéo bu une belle chanson. waaw euh, Thione Seck ak Paulette dina jàll en boucle sur King FM d' ailleurs dans sunu musique et puis on finit ak. mbaxus bi ñam ñam la. ñam ñam la mooy mbaxus bi <laughs> donc muy Mister Zou donc un Sénégalais donc qui vit à l'étranger proposé benn vidéo boo xamante ne euh, mën nañu wax ne sax c'est pas lui moom moo ko proposé mais c'est plutôt les Sénégalais de la diaspora parce que dañ tàmm di ko suivre sur YouTube wala Facebook et ñoom ñëpp ku ci nekk chaque jour doo jot message boo xamante ne waxuñu la ne mais grand am nañ ci benn boy sénégalais buy def carton donc finalement bu defee recherche ci leen découvre effectivement y a un talent sénégalais donc bu nekk étranger mais qui essaye qui essaye de rester ah donc boo ko xoolee rek xam ne sénégalais dañuy seetaan vidéo bi ñam-ñam lañ ko mooy titre bi nag juste waaw ma dédié la ko ñam-ñam <laughs> juste après on revient waaw après ngeen valider rek damay daal di la gisee rek daal di ree yow même su ma reewee ma ni ku sa bébé yow ñam ñam ñam woy ay ay li ma masala neex may doof ay ay sama asil ci yow la doof ay ay li ma masala neex may doof may la man ci yow la doof ñam ñam ñam woy bul ma xool bi ma juge yow mi naan dama tiit love bi lay maaj loo doo ko déetaan mën noo ko maîtriser. voilà ñam-ñam la ko tuddee Mr Mr Zou. Mr Zou Pape donc vraiment mu nekk morceau bu nice ni mu ko woyee surtout euh, thème bi mbëggeel la. Euh, te dañu gis ne d'habitude boo nekkee étranger nekk sénégalais boo nekkee di woy woy amour pour rien du tout tu tombes dans la vulgarité boo koy bind parce que liberté bi ngay am la donc y a pas de gêne mais moom dañu gis ne quasiment euh, woy bi yëpp da ko war mal ah, donc moom mooy valeur yi mi ngi ba léegi. donc mu jël way ko d'une manière vraiment euh, sénégalaise. Mhm. ni mu ko mënee wax vraiment ci at bale di mu ci def. Mhm. mais aussi ñu gis ne euh, dafa jël euh, clip bi. Mhm. dédié ko vraiment Sénégal. parce que ni mu ci solo bu ko neexoon mu solo comme tubaab yi. wala kaawmaan yi mais da ci sol yëreem pour ñu xam ne Sénégal la jógee. Mm. beneen bi mooy wolof. la way da bu ko neexoon way ko en français parce qu'il a une belle voix mais dafa tenir way wolof pour déjà sàmm ndëndëm bi muy sàmp ñu xamante ne Sénégalais la Sénégal la jóge te Sénégal lay représenté foofu mu nekk donc euh, voilà mën nañ ko suivre nag euh, sur YouTube donc bu ñu bëggee seetaan euh, clip yëpp en entier donc c'était Mister Zou ñam ñam